ko ñaanal jëwriñam ja sëñ am ni Modou Mbenda Fall yàgg fi loolu te ànd ak weer su ngeen gisee taxawaay bii dara waralu ko lu dul liggéey kër Serigne tubaa ji nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci Touba Libreville te jëlee woon digal li ci ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu koy ñaanal sun borom yàgg yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba lépp sotti mu fekk ko ci barke Serigne Touba su ngeen gisee taxawaay bi mu peggook sama loxo bi ndijoor Madiaw Diop la tudd moom mooy secrétaire général bi nga xam moo yore wàllu liggéey bi ci luy dugg ak génn moo koy bind ki bokk di Baye Ndiaga Ndiaye bokk ci chauffeur yi nga xam ni lu ñu soxla ci wàllu matériel di ko jënd ji moom mooy yor daamaram dem di ko jëli ji man mii taxaw di wax ak yéen nag may Mandiaye Ndiaye Baye Fall yore carte barkeelu yi nga xam ni moom la bokki taalibe di di jaayante ci liggéey bi liggéey bi nag nin ko nasee ci ginnaaw bu nu amee ndigal ci sëriñ bi danoo ñëw wax ceeg suñu magi taalibe yi ñu jox ñu ci ndigal ñu sasoo kenn ku ci nekk lim bi junni la tàmbalee dimance bu nekk ba ñaari junni baluwaay man beneen bi ci des ñu defar carte barkeelu yi nga xam ni ngir bokki taalibe yi def ko julli la def ko tamit euh, képp koo xam ne yaa ngi dugg ci liggéey bi di nga ko dagg muy ñaar téeméer ñu def ko ci liggéey bi moom lañ ñëwoon fii di leen ko di leen ko yaatal ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññu ñëpp te xam ne ndigal jóge na ci sëriñ bi tàbbi ci ci ñun kon kër gi lañ sëñ bi waxoon nee na kër gi kat nekk leen ci sëriñ bi moom moo koy àggale kon maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi bokki taalib yëpp ñu am ci pasteef ñu am ci pasteef te xëccu ci te xam ne sëriñ bi nee na ku ci feeñ dootoon nëbbu kon maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi ñëpp yàlla nañ ci dajee tawféexi sëriñ ba lépp sotti ci kanamu sëriñ Muntaxa bañ dem jébbal ko caabi ci barke sëriñ Tuubaa doole Cheikh Ibra ñi ngi doon yëkkati kàddu yi nag ci ndigalu jëwriñ ji nga xam ni mooy bëgg saaliw mi nga xam ni moom la sama borom dogal mu jiite liggéey bi ak ñi mu ko seqal moo ñu jox ndigal ñu ñëw taxaw fii di ko di ci soññee ñoo ngi jaajëfal ñëpp. Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd ak établissement Mbaye e Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee